trois phrases à dire à un homme pour le rendre fou au lit <laughs> vraiment may ñaan sama mbokki góor gourni. mën ngeen a quitter ndànk vidéo bi ginnaaw bi ngeen seetaanee commencement bi ak bi mën ngeen a quitter ndànk rek qui est di Je soxna yi su ma suis di waxtaan ak ñoom jox leen ñetti secret yoo xamante ni nii Je ko wax Je su di ko

asalaamaaleykum mbokki internet Jigéen fem ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di jox kenn ku ci nekk ci yéen sa wàccuwaay amaat mbégte ak contentement dikkat ak yéen ci seen vidéo astuce du jour mbokk yi nii rek lay demee saa su nekk ci chaîne bi nga xam ne yéen a ko tànnal seen bopp di Jigéen fem seen mbokk seen xarit seen soppe seen doomu ndey As ak ngeen ci àndal tey ci vidéo bi tey nag mbokk yi li nga xam ni moom la ñu fas trois phrases.

diñ ko jax ñaax ba muy def loo xamante ne ni daanaka lu kawe sax njortu lay doon yow mi nga xamante ni yow yaa di jigéen nee naa jigéen feem nii lay demee dañuy boole rek joxe ay xeeti baax baax waaye itam joxe ay conseil ci biir néegu sëy bu jigéen ñëpp daal di yor ay arme yoo xamante ni ni moom la ñuy noté góor ñi yor seeni cravache di leen ko caw te kenn du xam fu jëlee bagage yi <laughs> ay ca donc ñu lay ñaan rek bu fekkee ni gan gi ci kër gi ñu ngi lay ñaan nga daal di bës ci bouton abonnement bi yaram dafay tàng daal di bokk ci njabootu Jigéen FM activé walla cloche de notification bi nag mooy tax vidéo bu ñu dugal yow yaay bokk ci ñi koy njëkk seetaan alors donc sans plus tard direct dañuy daal di commencer ci li nga xamante ni moom moo di waxtaanu tey bi mu nekk ñetti baat yoo xamante ni nii boo ko dee wax góor. Eh, gis nañu ni saa su nekk dafay yokk doole yi góor waaye itam dafay yokk li nga xamante ne ni moom moo di attachement bi nga xam ni daf koy am jëmale ko ci yow eh, benn baat bi nga xam ni moo ci njëkk mooy nga jàkkarloo ak góor ni ko j'adore quand tu me baat bu ndaw la ma tekki ci wolof mooy oh lii daf may neex boo koy def par exemple moo xam ngeen nekk ci biir eh, yéen a ngi demalante voilà ci biir jokkoo bi am fa foo xamante ne ni laal na fa wala mu jékki-jékki tàpp la ci taat ndax góor ñi les fois bu ñuy bu ñuy bu ñu nekkee ci état façon bu ne la ñuy def voilà façon bu ne la ñuy def léegi léeg mu jékki-jékki moo xam dafay nàmp sa ci suween wala dara mais nga tànn benn ci benn benn benn moment boo xam ne yow ko jigéen ki lii da lay leer ba leer ne la daf neex chaque ah, euh, chaque fois da bëgg mu di la ko def amaana bu ko defee du ca yàgg wala benn yoon la koy def parce que xamul ndax góor la yàlla bindee euh, buy sëy ak jigéen toujours mi ngi làmbatu di xool fan la koy mën a jaar pour que li muy def neex ko donc yow nga yombalal ko ko ni ko oh j'adore quand tu moo xam dafay dafay jékki-jékki pénétrer bu baax moo xam dafay jékki-jékki am benn affaire boo xam daal laal na ko ci yow nga wax ko mu dégg j'adore quand tu dafay xabtal góor. góor buy yëngutu di def benn affaire di góorlu ba yëg ni li muy def neex na la nga wax ko ni carrément j'adore quand tu me fais ça euh, da ngay gis ni da koy xattal da koy da koy da koy ñaax da koy tolli doole day tax mu góorgóorlu def lu bëree bëree bëree bëri donc loolu benn baat la boo xamante ni na ko jigéen ñi jël def ko armo voilà di tànn des fois yenn moment yi euh, te damay bëgg léeg-léeg sëy di am waxtaan jamono bi ngeen di sëy euh, ba wax yi wax ji wax ji nay am nay am ay wax ku góor gi nay wax ku jigéen gi nay wax yow ku jigéen ki jëlal loolu boole ko ci say wax j'adore quand tu me fais ça baat bu ndaw la waaye baat la boo xamante ne nii góor ñi ko mën a muñ bëriwut waaw dafay xabtal góor da koy dolli doole da koy dolli courage day tax muy gën di mën a euh, lu pour mën laa bégal yow mi nga xamante ni yow yaa di jigéen donc baat la bu gàtt waaye baat la boo xamante ne nii baat bu bari solo la euh, bi ñaareelu baat bi nga xam ne moo ci des di deuxième phrase bi mooy nga jàkkaarloo ak góor wala nga yor sa téléphone portable mu xëy dem liggéeyi. wala mu liggéey ci ba wàcc yaa xam moment bu la neex nga dox ba agsi ci moom wala nga jël sa téléphone chérie aujourd'hui c'est moi qui prends le relais voilà jékki-jékki rek bind ko texto bàyyi ba ay 16 heures mu leer ba leer la 17 heures lay wàcc wala 18 heures lay wàcc rek nga door ko texto chérie ce soir c'est moi qui prends le relais tout court wala mu wàcc nga dalal koo may ko ndox mu naan dogal ko mu añ ba pare nga ñëw toog ci wetam ne ko tey tey su ma la jàppee ba bàyyi la nga xam ne lépp dëgg tey man maa moomee fëgg sa dënn ni ko tey man maa moomee dafa bokk ci baat yi nga xam ne day xabtal góor su ko defee psychologiquement bu amoon rendez-vous da koy annuler bu amoon papier yu mu war a signé fa la koy teg bu amoon fu mu war a dem da koy bàyyi dootul demati parce que góor la yalla nattoo mu am curiosité bobo malgré nag sunu société des fois 80% wala 90% yep da ngay gis ni góor moy def acte malgré que xeyna consensus da ci am tous les jours lolou kenn werante wu ko moo ne bi consentement la yeen ñaar ñëpp ci d'accord mais dañuy gis ni 80 wala 90% ku góor ki moy def acte ku góor fait mooy fóon moom mooy ci kaw moom mooy def lépp moom moo def donc sentir yow tamit sa capacité yow ko jigéen ki nga wan ko nag sa bopp mais avant que nga koy def nga wax ko ko mu aujourd'hui c'est moi qui prends le relais tey moom man maa moomee bis bu ma la jàppee tey ko yooyu xam nga dafa bokk ci nga xamante ne dafay xabtal góor da koy préparer psychologiquement góor ko lu mu man ci def ko pour waajur guddi gi dina ko def bu jaree dem naa ni boisson yi gars yi di jaay ci bitig yi ma bañ leen a tudd ndax ñëwaguñu sponsorisé ba nag ne du ma leen tudd dina ko dem wuti bu ko jaree mu jël miel bi waa intime femme di jaay dina ko jëndi bu ko jaralee mu dem wuti ji sunguf bi nga xam ne waa intime femme a nga koy jaay da koy dem jëndi rien que pour préparer guddi gi ndax li nga ko ni tey man maa moome tey maa appovant tey man may def donc day préparer loolu moom tamit ku góor gi ba tax ba tax na bu la daan jox dix yow jour bi nga ñëwee pour jël si boo moytuwul dina la jox trente tellement que dafa bokk ci baat yi xabtal koor jël ko def ko sa arme yow tam boole ko ci say baat yi nga xam ne danga koy faral di ko wax sa waay moo xam mu nekk texto moo xam mu nekk verbalement nga koy wax mu di ko dégg baat la yoo xam ne ku koy wax doo ko rëcc waaye nag na ànd di ko jëfe de na ànd ak di ko jëfe xam naa ne instant bi góor ñi seetaanu moo tax may waxtaan ak jigéen ñi ni di leen jox feeñ mi ndànk-ndànk mu am ci nag benn troisième baat boo xamante ne ni moom mu ëpp importance te malheureusement suñu société jigéen ñu bare bare bare bare bare pour ñu wax ko problème la mooy ban baat que tu es puissant góor la yàlla nattoo mu bëgg ku koy glorifier bëgg ku koy màggal bëgg di ko wax ni ko c'est toi le meilleur tu es le meilleur des hommes li may dund ak yow mosuma ko dund ak góor fi mu ma yóbbu góor mosuma fa yóbbu genre yu mel noonu di ko wan ko ni c'est toi le meilleur di ko wan ko ni je suis satisfait ndax tey psychologiquement quatre-vingt-dix-neuf pour cent góor ñëpp psychologiquement nous ne sommes pas rassurés tellement que gis nañu new katan bi ni mu bari ci góor ñi euh, manam ñak désir bi jigéen ñi di am bu ñuy jotee ak seen borom kër dafa bari euh, tellement que dem na ba góor ñu bëree bëree bëree bëri psychologiquement nekkatuñu bu ñuy sëy toujours seen bopp ñi ngi xalaat ndax soxna si bëgg na ndax kontaan na est-ce que li may def doy na ko est-ce que ni ma koy defee baax na est-ce que est-ce que est-ce que ces séries de questions là moom la góor ñi di posé wu dans leur tête nga rassurer sa partenaire nag xamal ko ne ko carrément je suis satisfait li may def neex li may def car tu es le meilleur li ngay def yow kese yaa ko mën genre yooyu dafay bokk ci li xabtal góor dafay bokk ci li tax góor di wane boppam nañu koy faral di utiliser baat yooyu nga sëy ak sa borom kër ba noppi na même bu fekkee ne sax kiiwuloo sax sax ngaañ mais terewul nga jékki-jékki rek na lasar ci lal bi bashir dojuk jug saw wala doo jug sangu ko eh saa bi kay mënatuma dara li nga ma def oh mais bébé tu es fort c'est genre là genre baat yooyu dafa bokk ci li tax di am confiance ci bapam, tey bari na góor ñoo xamante ni pour ñu sëy ak seen soxna sax dañ koy waaj waajaat ko waaj ko waajaat ko tellement que amatuñu confiance ci seen bapu, yow nag nga di jox confiance di ko remonter moral bu paree nga ni lasar laaj ci sagal ko ouh bébé tey moom yóbbu nga ma ardo ouh waaye yow mais yow lii lan la lii ci xeeti genre baat yooyu dafay xabtal góor te dafay tax bu suba mu amaat envie ñëw joxaat la li nga xamante ne moo di sa ration baat yaa ngi noonu ñetti baat nanu ko daal di jàpp def ko arme yéen ñi nga xamante ne ni yéenay jigéen ñi bul ko partagé benn góor nag partagel say xarit ñoom itam ñu daal ci bénéficié wu su ko defee ñoom itam ñu mën a bégal seeni waay waaye bu ko defee ñoom itam ñu mën a téye seeni waay gérer seen biir néegu sëy loolu moo tax a jug jigéen fem te yow mii mbokk internet bu jigéen fem yaa ci mën a jàpp ngir vidéo bi yaatu seen mbokk seen xarit seen soppee seen doomu ndey as la woon ci jigéen fem seen vidéo astuce du jour la ñu leen indi leen di leen jox rek dig daje incha allahu rabbi suba ci beneen vidéo ci yeneeni astuce asalaamaaleykum عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته